seen seen Nianthio Média bi seenu jagle rëy na ndax soxna Faati Jaxate ak soxna Marema Jaxate ñoo bokk ndey ak bàyyi danañ ci ñëw ci kanam tuuti mu gën a leer soxna Faati Jaxate am sëriñ Saalihu Mbàkke ak sëriñ Abdu Xuddoos ak sëriñ Abdu Baaxi ak soxna Taayiratu muy ñett góor ak benn jigéen soxna Marema Jaxate am moom itam sëriñ Abdu Laxat ak sëriñ Sohaybu ak sëriñ Abdul Baaxi ak soxna Aysa moom it muy ñetti góor ak benn jigéen te ñoom ñu bokk ndey ak bàyyi. sëriñ Saliou ci tànnu sunu borom sëriñ bi dañoo wax ni dafa waxoon ni dafa soxla ay njaboot yoo xam ne te ni seeni maanaam naka jekk buñ leen doon topp ba juróom-ñaareelu maam. dañuy jàng alxuraan doon ñu mokk alxuraan ba noppi di bay di dunde di dunde seen ñaq ci lañ ko tànnalee soxna Faati Jaxate ak soxna Mariama Jaxate ci la ko sëñ borom daru tànn fa andi lañ ko tànnalee soxna Faati Jaxate ak soxna Mariama Jaxate ci la ko sëñ borom daru tànn fa ko tànnalee soxna Faati Jaxate ak soxna ci la sëñ borom daru tànn sëriñ Abdul Ahad Mbacke sëriñ Abdul Ahad Mbacke mi ngi gën a jamono ci dëkk bi ñuy wax Buxaatul Mubaraka ñu gën koo xam ci njaareem atum ci njaareem ñaari waajuram yu sell di soxna Mariama Jaxate ak sëriñ Touba Xaadimu Rasuul. Euh, loolu nga laaj ci sëriñ Saalih ci gën ak àddunaam moom radiyallahu anhu mi ngi gën a àdduna ci wax ci gën a wér. ñooy nit ñi ñuy wax mille neuf cent quatorze quinze waaye quatorze daal day mel ni moo gën a ëpp ci nettali yi ñu ngi gane àdduna it eh, njaareem ñaari way juróom way juróom di soxna Faati Jaxate mu sëriñ Muuru Astu Jaxate eh, mu méwndu eh, mooy way juróom soxna Faat Jaxate ak sëriñ soxna Marème Jaxate mooy jur suñu Abdou Lahad ñoo bokk ndey ak baay soxna Faat Jaxate mag ko soye bu mbàkke sëriñ soye bu mbàkke mi ngi ganee aduna bisup talata juróomi fan ci wéru koor ci atum 1335 ci Talata. gi talaata juróomi fan ci wéru koor ci atum 1335 ci gàddaay gi ci dekk bu sell bële di njaareem bobu waajuram sëriñ Tuuba Seexul Xadim mi résidence surveillée mu tombé bisub mardi 26 juin 1917 mardi 26 juin 1917 ci dekk bobu di njaareem le serigne soye bu ibnu serigne touba cheikhoul khadim feeñe jamono di di doomu soxna mareema jaxate ak ku baax ki sëriñ tuba seexul xadim moom sëriñ soye bu mbàkke ibnu sëriñ tuba seexul xadim am na nag ku mbokkal xadim rasul ak kii di soxna mareema jaxate muy magam jo di sëriñ tuba cheikh abdul ahad mbàkke ibnu soxna mareema jaxate ibnu sëriñ nga xam ne sëñ am sëtu mooy taaw bi sëñ mbàkke di caat mi ñoom ak ñi jaar ci seen diggante ñuy càmmi ñi euh, soxna mareema jaxate ak soxna fat jaxate ñu wóolu leen wóolu koo xam ne genn wóolu mënu koo féete kaw ñu liggéey nag liggéey bu rëy ndax ñoo xam ne ñoo bokk ndey ak baay di ay góor ak ay jigéen góor ñi ñëpp nga yar leen ñu mel nii jigéen ñi ñëpp nga dëkkoo leen ñu am lii ñu am loolu yombut nag loolu ku ne xam ne ci la ab cër mën a yem kon ñooñu ñu jaxasoo xaadimu rasul yaakaar yi jàmm ni seen seen Nianthio Média Vision